ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye ba ci Louga yéen a kaay gi di réew mi ko di cee nee na en am ba des sal lay raam sa ñag ba la jëm te bu fa amee kër du baax situation bi nii nga xam ne moo lay demee maanaam dara baaxu ci ñi nga xam ne ñooy liggéeykat yi ci wàllu wér yaram gi ñoom nee nañu jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñuy jànkonteel loolee tamit dañoo bëgg état bu Sénégal daal koy saafara ñoom tim daal nañuy wax jëm ci wàllum plateau médical a kaay na xam ne nag moo faatu woon fan yii nga xam ne moom la am ne ñàkk na bakkanam nag di jigéen di Ramatulaay Fay hôpital Fann journal bi nee na dafa daan woon crise moom Ramatoulaye Faye ñu daal koy jël nag yóbbu ko ci hôpital Fann ba demee ñu ne wax leen na leen fay leen li nga xam ne mooy scanner bi ñi moo àndal nag fay scanner bi waaye nag ba ñu ko fayee ba pare jëlañu ko en charge daal di koy wax ne ko place amu fee ca noone nag ci la ba xanama njabootug Ramatoulaye Faye googee nga xam ne moo faatu ca hôpital bu Fann ñoom nag nee nañu danañu daal di porter plainte yéene kaay di réew mi quotidien aji mbir gànkandute daal di wax ne njiitu réew mi di président Macky Sall ba léegi munta wana yéene gi de la turbine xëy duñu xibaar naan ñu musiba ma ba kumba gu rëy soo mooy dina am fi nga xam ne mooy kaneel ak ca diwaanu maatam bu dee amu fa ba pare sax ndax na journal bi nee na conseil national de la sécurité alimentaire nee na ñu askan wi nga xam ne ñoo yeewoo diwaanu maatam ak diwaanu kaneel ab xiif ma leen di rey ndax nag xëy ndékk añ reer loole nag kenn nu ko ci diwaanu Matam ak ca kaneel journal bi nee lu toll ci cinq cent quarante neuf mille ci ay ñoo xam ne xiif bu métte métte ma ngi leen di yota bu dee nag état bu Sénégal jëlu ci ay matukaay bu rëy mën a fa am yéene kaay gi di Sud ñu koy fekk fa doyen professeur Mamadou Moustapha Kassé bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru nee ma bu faseek daan nay wax ci lajjte gi nga xam ne nag moo am ci lu jëm ci wàllum souveraineté alimentaire maanaam senegal la ji gi mu ci moom boppam ci lu jëm ci wàllum ak gi ak Sénégal la ji gi mu lajj ci lijjantil xale yi ay xëya loole nag ñaari ponk la yoo xam ne ñëpp daan nañu nemmeeku ne état bi da see daal di lajj loole la professeur Mamadou Moustapha Kassé kaay gi di Sud Quotidien lan moo ko waral yéene kaay gi di Rewmi xëy dañu xibaar naan ñu en tout li am ba mooy ñàkku carburant gi nga xamante ni nemmeeku nañ ko fee am na si ñoo xam ne commencé nañ see sonn loola maanaam mooy nappkat yi nga xam ne ñoo nekk ca diwaanu Soumbédioune jafe-jafe neen la ñu dund ndax nag ñoom pêcheurs yi ñoom nappkat yi nee nañu ñoom amuñu beneen activité bu dul nag seen gaal yi dugal ko biir ndox mi nee nañu carburant bi jamono ci nag teg na leen tuumu ranke goo xamante xam ne démb wàccoon nañ ci mbedd mi askanu Kër Masaara nee nañu nag li nga xam ne mooy nawet bi ma ngi ñëwa te nag nawet bi bu tawee rek Kër Masaar ñëpp tëmb ci ndox nag loolee tax askan wi génn di alerter di avertise ñoom nag nee nañu jamono jiital li ñu bëgg mooy ay canalisation ndax nag nawet bi waa Kër Masaar nee nag njàq rek tiis ci amee yéen kaay gi di Walf Fadjri ñu koy fekk fa Alioune Tine daal wax ne ñetteelu mandat Macky Sall Sall loole wërta am ci réew mi Aliou Tine mooy wax nee na nag am na ci lenn sax loo xam ne coup d'état d'école blanc la yéene kaay gi du l'Observateur nee na Sénégal saa sunu xëyee di gis njombe yi girawal yi ci biir internet bi yéene kaay gi nee na Adji Sarr kër bi ñu koy déglu ak Ndeye Khady Ndiaye ci bureau doyen des juges dañoo filmé woon Ndeye Khady Ndiaye ñu ne déetawaay Cheikh Omar Diagne mi nga xam ne ma ngi ci kaso bi démb bu timit nag ay nataalam ak ay vidéo ma mu nekk ci kaso bi moom Cheikh Omar Diagne daal di toog yéene gi nee na nag loolee dara jaaduwu ci réseaux sociaux yi jamono en tout cas ñu bari koy jëfandikoo nag ngir éliminer nit ngir déstabiliser nit yéene kaay gi du source a nee na nag bu dee nag mbiri Cheikh Omar Diagne mën nañoo joxar bi baaraamu tuuma administration pénitentiaire yéene kaay gii di Rewmi Quotidien ak Vox Populi ak L'As xëy duñu xibaar daan ñu accident yi jamono ji ma ngi mel ni tulleeg maale ci dimanche ji am na ñaari accident yoo xam am na ci yoonu Tataguine bi journal bi nee na lu toll si juróom ñaara ci nit ñoo si ñàkk seen bakkan si ñaari accident yooyu yéene kaay gi di Libération xëy duñu xibaar naan ñu nag ay njuuj njaaj am n fi nga xam ne mooy poste finance yéen kaay gi nee na dafa am ay compte client yoo xam ne dañu ko vidé ñi nga xam ne nag ñoo am ay compte ci poste finance bay boo ñu tiita yéen kaa gi nee na en tout cas li am ba de na ñoo xam ne seenub xaalis dañu ko jëlee ci seen i compte waaye nag dugal ko ci yeneen compte maanaam dañoo vidé ay compte gonflé ay compte yéen kaay gi nee am na lu toll si ñeenti nit ah ñoo xam ne sûreté na teg na leen loxo yéen kaay gi du sunu làmb ñu koy fekk fa Max Mbargane nee na combat bi nga xam ne moo war a dox diggante Siteu ak Papa Sow ah. jamono ji nag Max nee na Siteu pare na